la tàqamti jaaxaat di ree bu ko def bëgg nga lu jar a bëgg yow. Alboury waaye nag fawul fawul fawul nag fawul bëre rek la def carrière am gars yi nañ ko song nañ ko dem jëli moo gën jëli leen Alboury. mais temps yi bës bi moo ko yor de. temps yi Alboury moo yor ji bës bi. dégg naa leen koy indil ci gâteau kenn xamul nu mu toll. te jaw mooy borom bis bi. cooy sama loolu. waaye nag Sa Thiès dama xamul lan moo ko téye ba léegi makan heure bi ñu ko joxoon boo xoolee léegi mu passé ba léegi mu ngi ci préparation yi te loolu noonu du du dafa doon loo xam ne lu doy waar la. parce que saa waay dafa ne bés bi moo laaj loolu. waaw waaw mais heure bi daan na ko fekk mu génn bu yàgg. mais xaw ma moo tax ñu nekkul stade. Ah. maa ngi dégg est-ce que Reug Reug mel ni dem na. waaw même bu demee tam dina toog xaar parce que saa waay règlement bi dafa ne moom mooy njëkk ñëw. moom mooy njëkk ñëw waaw. dëgg la mais lu ko téye ba heure bi daal jaaxal na. moom mooy jaaxal saa kees moo a njëkk waaw waaw. bu ko téye ba heure bi daal jaaxal na ma. 16h noonu. kan mooy 16 mooy 16 xam naa nag léegi mu génn. 16 naa léegi mu génn. na ko la. loolu ma kan. loolu mooy dafa xat. xat. day san may ragal tey combat bi guddee. ndax gars yi ba léegi seen kër yi. Ah, ragal naa du guddee de parce que combat Gaston du tëgg di cinq rek lay yem. waaw pour mun a libérer gars yi à 19h. ku nekk dem sa yoon. waaw waaye tamit boo xoolee heure bi dafa gaaw. dëgg la heure bi dafa gaaw léegi léegi huit jot. dëgg la. kay tey moo tax lu ñu ci def lu ne. arène nationale 22 xam naa nag léegi mu génn. kay lamb. daa ngi tuur ndox tey ndox ndox li mu mën a fànk moo bari. waaw waaw moom ah préparation bi waaw si ñoom la de tey lu làmb ji laaj la rek moo tax ñoom mu taxaw mu demee nii. waaw préparation bi musu ko def. préparation bu yàggee nii. <laughs> bu nekk ak lu muy laaj. dëgg la moo waral li waaw waaw waaw champion la nag champion ngeen xam ne séeréer yëpp ko téye. waaw waaw jëf yor fu nekk lay dugg. waaw waaw mi ngi fisal. yi fépp. waaw waaw. amaana mën nga taxaw ne contact bi Reug doon def moom laa tiital Sa Thiès dëgg la def si ligue simple moo tax kenn du ko dem fu mu dem fu mu dem mbapat toj ko waaw Moustapha Nabi jël drapeau ñëw toog tey lamb lamb mën na ne Moustapha Nabi Moustapha dëggal gaay yi gaay yi nee nañ tey ñu gis lu mu mës gis. cooy. mu ne Gaston nag war na yaatal site day sànn ku la jege ku ne lu baax na fa demee la ay site mooy dugg ak li TV moom yooyu da ko war a bàyyi. waaw moom nag moomuñu waaw. nee naa la ñi yàq lamb na ñi yàq bokk na ci. waaw ndax nit da yaatal boo bugga yaatu. dëgg la mais boo bëggee jël lépp jëmale ko sa sa sa bopp nga ne yow rek. ah affaire du dem. déet na la fas yéene de ñëpp ñoo bokk nday ñoo bokk baay ñun presse bi waroon mànkoo boole doon benn mais boo jëlee bëgg a jël affaire yëpp ni yow rek ah du doy waar dafa doy waar. waaw loolu la fas yéene de. nekk daal nee na Siteu mooy dugg ak Lutte TV. wallaay yàlla moo may vie yàlla moom may publicité. li nga war a lekk rek moom ngay lekk kenn mënu la ko xañ. dëgg la wallaay. waaw waaw. war na de ku si bëgg a liggéey nga liggéey si. ndeysaan xam naa nag léegi mu génn. ay boisson laa gis fee. boisson orange yaa ngi noonu. tey waa orange tey dinañ jar la waaye. waaw moom saraxu canette fanta orange. man de affaire bi jaaxal na ma. Ah, lii de maa ngi koy na la lamb xaalis la boo bëggee daan da ngay génn xaalis. ah man pour man defe naa chauffeur yii daal nga xam ne ñoom ñoo sonn pour dem pour ñooñu. dama ni ndam yàllaa ko yor waaye yàlla yàlla bay sa tool ndam ndam. yàlla moo ko yor waaye yàlla yàlla bay sa tool. wallahi wallahi sa tool yooyu lépp ci mbay la bokk la quoi ñoom ñoom moom kanet yi waaw waaw ñëpp ci sarax bi la bokk. lépp loo gis fii rek. xoolal mu lii rek lii de maa ngi koy soog a gis. walaay walaay. kay lamb ngi ci de. waaw mburu mi mburu mi ñu ne mburu baa ngi noonu di ñëw. wala chocolat wala beurre nañ ci def. dina leer gu ndox. waaw waaw guro gu weex gee ngoog. xam kenn du la digal saraxu guro te boole woo ci bu weex. ndeysaan sama waa ji yor na ñaari leket. am naa bu ñuy tuus moom dañuy teg def ci ay saafara waa ji këppoo ko. dëgg dunku yee ma gis moom dunku lu mu doon xanaa dunku caanin la. ndeysaan ah, oto yëpp ñu ngi koy a ndox. dunku yee ma gis dunku yooyu moom du dunku ginaar lu gudd. non du dunku ginaar. est-ce ah tan xaw ma tan xaw ma tan nañ koy wax. koppil koppil cay loolu. lu ne. Oh. waaw niru na oto yëpp ñu ngi koy sotti ndox wala mu lii rek. pour jàmm mun a am. Mhm. ngir ndam mën a am. ndeysaan. tey jàmm ku daan rek nga gëm yàlla xam ni yoon la yàlla dogal. dëgg la ñu bañ a xiiroo bañ a ŋaayoo ba lamb warul am violence. dama ne lamb warul am violence. violence lu mu dugg la mu yàq ko. nan ko def si fair play ku daan xam ni loolu la yàlla dogal nga nangoo ko yàlla sunu borom. te dem ñi beeg moom xam ne beneen yoon dina ñëw nga daan. addunaa demee noonu cay magan moo ma jàngal wax sama doom nday Kalidou xam nga booy ànd ay waxkat li nga li booy ànd ak booy ànd ak waxkat ku mel ni Jaw Fara ak Makan dama ne di nga wax a ba lekk wax. waaw ñoom dañu am fit. wallaay wallaay. mën li ñuy def ay waxkat yu mag lan. ndeysaan di loo xam ne ñu yàgg wax lan ci micro. dëgg ay borom lang balok. ndeysaan yàlla moo leen nattoo si loolu. ku nekk rek fii yàlla di jaarale sa wërsëg ñoom nag wax la jaal yàlla jaarale sa wërsëg. wallaay wallaay wallaay waaw waaw. man caméra laay def waaye dama ànd ak ñoom ñuy wax wax ba ma ba mën a wax moo tax damay wax. wallaay maa ngi nuyu Bambo la solution. nuyu nga ko jar a nuyu. waaw waaw borom sopp sëñ Fallou Sock. di nuyu borom ci làmb ji moom ma ko sol defe naa mu génn. yàlla na jàmmam yàgg. xale yëpp a bëgg a moo ko laaj. ah boo ànd ak ay waxtaan tey di nga waaw waaw. Bambo la solution maa ngi koy nuyu. mais sama gars dafa mel ni Sadio di nuyu Bécaye waaw léegi mu génn léegi mu génn am naa débat def war na jeex léegi mu génn. tey liiru tey liiru borom liiru day. waaw beneen oto ngi noonu. kii dañu ci Balla Gaye la may ndróol. Aziz Ndiaye. xam bu dee oto rek. bu dee oto rek Aziz Ndiaye ngoog. doomu ndeyu Balla Gaye doo ak Sa Thiès. waaw sànq gis mu yore benn 4x4 bu noir. ay parking oto la ñu yor. waaw loolu moo tax mi ngi ko mi ngi si parking ba. ndeysaan. de ko portable sax boo ko bëggee ñu nil la ko. ndeysaan Aziz Ndiaye nekk fee sa Ouest Foire jàkkaarloog station Total bi. ndeysaan bi muy ñëw 4x4 bu noir. boo xoolee renc bi renc bi amagul sax plaque renc bu bees tàqalal di banaa cay lii li mu yor ci oto Balla Gaye oto la yor. Balla Gaye rek la mu yor ci oto dafa bari. ndeysaan xoolal lii rek. te damay ragal est oto bi sax joxuñu ko saa pour bu daanee jël ko. ndeysaan lépp mën na ne. mën na ne xalaat bu sell la waral lool la. bu ne bu Sa la ba am Cheikh Rafal bi ci ginnaaw. dëgg mais bu Sa Thiès la dëgg la cay lamb. bii naay sori bii. Balla Gaye dégg naa am amoon ma kan bala naa Balla Gaye amoon na ci oto bu mu joxoon Sa Thiès. Ah. xaw ma ban oto la. Sa xam naa léegi saa kees génn. tey seex bi yàlla na fi yàgg te wér. Ah, léegi ñaanal rek. li nga yenn yëpp yàlla na oyof si yow. mu ngi sa ginnaaw de. naa saa kees mu génn. libaas libaas bu saa ah, mën a am lu pour nga mën a yoon bi. non peut-être balaa moo génn débat débuté pour moom la. débat débuté la pour moom la balaa moo génn dinañ mën a am temps pour filmer soog a dugg. waaw waaw ak journaliste mën nga ko yóbbaale ba arène nationale sama doom day. waaw ah, mais xamoo leen ndax dem na wala demagul. ah si gàttal. ñu ne daal saa kees mooy njëkk dugg après Reug Reug dugg dugg. waaw waaw. préparation magat moo demee noonu 4 demi nañ ko wax pour mu ñëw stade. waaw bu la jox Balla Gaye day sànn moom 2 heures pile dem na stade. ak moo fonk lu muy def. daf may poto. wooy ma siiwal ma TV Bamba sa jaago sëñ Fallou eh Bamba Bamba gis naa fi ay siège yu bleu fatañu bokk kon xam naa léegi mu eh, génn fatañu eh jaago gis naa fi ay siège bleu yu ñu teg ci 4-4 bi xam naa lépp mu génn. Sadio da xoolee siège bee ñu teg ci kaw. waaw gis ay layu yu ñu teg ñetti kaamin. kaaminu alxuraan. cey nag dañ koy joxe. léegi wala dañuy bàyyi ba dem esta waaw dañuy génn sa waay. waaw waaw. boo gisee nga préparé sa mi ngi waaj a génn. gis naa fi layu boo xam ne dafa def ay kaamu na alxuraan. ndax dañ koy joxe léegi wala bu ñu demee stade ba la ñu joxe ko wala ñii di tuus dañ koy jox loolu yëpp dina leer. waaw dëgg la mu génn parce que liiru jaan mu ngi leen di calmer léegi mu génn. boo boo gisee siwo yi ngay gis na le. siwo yi may gis na le si buntu kër gi daa mel ni moom mooy dernier cumbukaay yi am si biir kër gi saa boo gisee loolu xamal na Sa Thiès si nga waaj a génn. te xam naa ne bu koy xëppoo di dugg si oto bi cooy làmbuwaay. waay la. liiru mi ngi mi ngi wax de lu muy kaas noonu. wallaay. tey liiru jaan waay. adduna lépp mën na ne. sama doomu day ba si Sine TV sëbër la woon léegi mi ngi caméraman. sama benn doomu day bu nekk Sine TV. tey mooy dawalal boppam mooy filmer boppam mooy montal boppam. adduna fu fu yàlla xoolal ci makan rek doomu day Tivaouane. nga xamante ne tey journaliste day téye micro di commenté léegi tey mi ngi téye caméra di commenté di téye caméra. sàn saa kees léegi mu génn. am na lépp teraanga la loo gëm rek yàlla dimbali la ci. dëgg la dëgg weex bi la wala war a jaaree ci ginnaaw yeeg boo xoolee gars yi. gis naa ay saraxu bridal tey bii combat. waaye xam naa ne leen jënd ci léeg-léeg mën na xaalis xaalis la. sànq gis naa fi ay saraxu kaamin. waaw mu ngi jël ñaari kaamin. la ñett la bi waaw boo gisee nga xam ne sa bi jar na ko de. cëy làmb waay lu jar a lu jar a bàyyi xel noonu. làmb ku parewul doo si nekk. Mhm. fure yaa ngi noonu am na yoo xam ne fii nañ koy saraxe am ñoo dañuy dem ba stade xam naa nag léegi mu génn. lu waay doon jaay léegi mu lamb. dëgg la. am na ci këram de konkolum hmm? ngi teg mu génn ndeysaan léegi mu génn dernier bagage yoo xam ne daf ko war a sotteeku balaa moo génn moom la gars yi teg nii waaw waaw mu génn ndeysaan waaw waaw waaw dëgg la bokkam yaay galaay taalibe Bàmba la. ay liiru jaar. waaw waaw mi ngi joxe ay conseil ne ànd la dal. gis nga kee muy waxal xaritu su benn bakkan la. ndeysaan rek. làmb mel doom nday doxalal. ànd la dal. doom ndayam ngi koy ne ànd la dal mu génn.

kan la may Lac de Guiers la may nuróol mu doon kii ta moom. kii Pape Mama Fall. Pape Mama li nga wax rek mu naam tam Lac de ak guy gi ñu ngi si biir. làqtu bañ a génn. taxaw borom kapson bu ñuul bi. kii taxaw ñu ngi si biir làqatu bañ a génn muy guy gi ak Lac xam naa nag mu génn ndeysaan Ah, ah. gis naa fi ay paanu mbiskit ak suukar. gis naa fi paanu mbiskit a suukar. xaw ma ndax dañ koy joxe léegi wala bu ñu demee ba stade dañ koy joxe ndeysaan gis naa fi tamit xaal tey bii làmb eh, eh. ay làmb ji lum mu leen jaral saa mi ngi nii di waaj a génn dama xamul si 4-4 bee lay dugg wala si buy. waaye Sa Thiès ngi waaj a génn gis naa fi ay paanu suukar ay ay paanu biscuit yaayam mi ngi noonu yor satala ndeysaan saan mère Sadio ndeysaan yor na yaay Sa Thiès mi ngi nii taxaw yor satalam moom tam di def ay muslaayam di def ay débat débam ndeysaan kii di wax leen ndànk moom mooy sëriñam xam naa sëriñ lam la saakees mi ngi waaj a génn ndeysaan yaayu saakees mi ngi nii taxaw yor satala di waaj a génn gis naa fi ñoo xam ne ni yor nañ yor layu yor kaamin alxuraan lu mat quatre xaw ma day ndeysaan ñu ne kooku moom may élu dubales moom moo ko jur ndeysaan saa saa kees ngi waaj a génn gis naa fi ay paanu mbiskit ay paanu suukar ndeysaan mbiskit ak suukar bu ñu jaxase di ko waaj joxe san tey bii komba ñu ngi waaj a def seen tànn débat dépp yoo xam day dañ koy def soog a dem sat gis naa fi tam ki fi ay nen ndeysaan yaayam yor na benn butéel di si ñaan pour doomam tegaat na ko mu ngi siy ñaan ndeysaan yëpp ay paanu biscuit la ak suukar yoo xam ne dañ koy joxe yaay saakees mi ngi ni yor benn butéel di si ñaan balaa doomam moo génn peut-être dinañ ko ko sotti mu soog a dem tey bii combat ndam li Géejawaay la jëm wala caare si kanam dina leer. boo xoolee magan gi taxaw ci buntu kër gi mi ngi sànni guro bi. waaw sànni na ko. sànni ko. Sa Thiès mi ngi a génn ah Sa génn na ndeysaan Sa Thiès génn na ñu ngi def ay débat débam ñu ngi koy jox ay sangat di ko jox ay bant ak ay galañ yoo xam ne nii daf ko yor yaayam mi ngi noonu tamit di ko jox ay butéel pour moom balaa moo dem ay waay bii combat ay waay ndeysaan magam muy Balla Gaye moom tam mu ngi koy sotti ay saafara ndeysaan mag ji mu ngi koy sotti ay saafara ndeysaan Balla Gaye mi ngi noonu fils de Double Less nga xam ne moo daan champion bu mag mi Yékini ndeysaan gis nañ fi ay lay yoo xam ne ay gure yu xonk yu gure yu di weex waaw waaw def saaksan yu waaw dëgg la Balla Gaye def na lu ne si lamb ndeysaan tey bu ñu demee ba na lamb yegg na fii bu ñuy lembari nañ si boole Balla tey ndeysaan jël goran bi jëlati ko waaye Balla Gaye cey Balla Gaye waaw waaw defal na waa géej waaye lu rëy indil leen roi des arènes loo xam ne mbër musu ko def waaw waaw dëgg la Balla Gaye mi ngi noonu yor benn leket mi ngi sotti rakk ji gàllaaj waaw dëgg la si bés bi ndax saa bu Balla Gaye mosee taxaw Balla Gaye Sa Thiès a ngi si ginnaawam tey Sa Thiès war a féetee Balla Gaye ginnaaw ngir jàppale ko tey ndeysaan mbokku mbokku ndey ngay jur waay ndeysaan ndeysaan Sa Thiès mu ngi noonu di waaj a génn ñu jox tamit butéel yoo xam ne. ñu koy jox tamit yoo xam ne moom la koy def avant moo dem stade. yaayam mu ngi koy sotti. mat ji mu ngi koy sotti Balla Gaye newoon naa la newoon naa la newoon naa la butéel yi ngay gis noonu si buntu kër gi saa bu mbër bi génnee rek bu koy di yéeg te daa mel ne mu ngi si kawam kon mel na ni Sa léegi tey mu dem. waaw parce yaayam mu ngi jox Balla Gaye ay butéel mu koy sot mhm, ndeysaan xam naa léegi ñu pare. saan waaw léegi ñu pare xam naa ne li si des moom pareetul eh, mel na ni li ñu doon xaar daal yegg si na tey. saan li si des bi nañ de dafa durox ñoom léegi euh, léeg ñu ngi waaj a dem. dama fu mu toll nii kay képp kii dem stade mën nga jiitu wala nga taxaw si ginnaaw di ànd ak mbër mi rek ñu ko war a ànd ñu war a topp mbër mi yëpp tey mën nañoo taxaw tey di ko xaar ndax Balla Sa Thiès ngi nii di waaj a génn ndeysaan waaw gars yi ubbi nañ barrières yi xam naa ne daal nañ barrières yi ndeysaan si dëddu ba les bu may waaj a génn ndeysaan Balla Gaye mi ngi noonu ñu ngi koy ay saafara gis naa ko xam ne mi ngi yor guré yu xonk guré yu weex ñi yor ay kaamin ñi yor ay layu ñii yor ay pomme ñii yor ay boison ñii yor ay carax ndeysaan ñii yor ay ginaar ndeysaan saa kees mi ngi waaj a génn mi ngi waaj a génn ndeysaan ball mu ngi koy mu ngi koy sotti ay saafara ndeysaan ball gee ngi noonu kii yor yoro satala bi moom mooy yaayu ball yaa moom mooy yaayu ball moom mooy yaayu saa kees ndeysaan yaayu saa mi ngi noonu moom mooy yoro satala bi yéen soo leen wàccul oto yi départ man dama leen di xaar il ngeen wàcc bu gars yi ngeen daw féete leen kanam jël waaw ndeysaan jëlal cuisson yi waaw waaw waaw jëlal cuisson yi waaw ndeysaan day jàpp ndeysaan mi ngi jàpp si Balla Gaye lu mu ko jox ndeysaan tey combat waaw waaw ndeysaan ndeysaan tey làmb ndox bu ne da nga ko gis tey. boo gisee butéel yi ngay gis ni tey butéel bu nek couleur am loolu làmb ko laaj ndeysaan làmb waay. Mhm. ndeysaan dafa ndox moom 4KB mi ngi waaj a dem ndeysaan Balla Gaye ndeysaan. ndeysaan gure yi ay tettal la xaw ma ndax dañ koy joxe fii. ndax dañ koy joxe fii dañ koy naa dañ koy sànni day sànn saa kees mu ngi sànni gure yi gure yi xonk yi gure yu weex loolu yëpp ay tettal la mu ngi koy sànni day sànn mu ngi koy sànni day sànn mu ngi sànni mu ngi jël gure yi di ko sànni day sànn mu ngi jël gure yi di ko sànni gure yu weex la ak gure yu xonk yooyu yëpp ay tetal la mag ji mu ngi koy puusal muy Balla Gaye nday sànni dafa lu lekk waa Géejawaay indil na fi roi des arènes ndeysaan def na fi loo xam ne benn mbër dëkk fi ndeysaan saa kees mi ngi nii di waaj a génn pour dem arène nationale ndeysaan yaayam moo toog noonu yaayam mi ngi noonu taxaw yor benn layu ba pare yor benn satala jaajëf ndeysaan fils de Double day ndeysaan mu ngi koy jox ay butéel ndeysaan ndeysaan tey bii komba ndeysaan saa kees mu ngi waaj a dem ndeysaan saa kees mu ngi waaj a dem ñu ngi koy sotti ay saafara Balla Gaye yor mbuusu ndox yaayam yor benn satala ndeysaan ax benn layu ñi yor nañ kaaminu alxuraan waaw waaw nii dafa mel ni dafa am lu mu ci bëgg woon Sa Thiès pour mu xool ko ndax boo gisee waa ji mu ngi taxaw jàkkaarloog Sa Thiès nar a ubbi kaamil bi waaw waaw xam naa sax noon lay demee noonu lay demee ndeysaan Balla Gaye ngoog waaw dafa ndox kaamina alxuraan yi daf koy ubbi xool après soog a dem waaw waaw loolu yëpp ay tettal la xoolal ma lool rek waaw lu nga wax dëgg boo gisee li ma la doon wax ngi noonu Sa Thiès ubbi na kaamil bi waaw boo xoolee mi ngi téye kaamil bi te am lu mu siy jàngat ndax alxuraan mën na lu ne loo ne alxuraan mënu ko da xamul alxuraan dafa tënk lépp li ko gën a foor amul ndeysaan waaw waaw tey sama waa ji li wax dëgg la. liir na na nen jox nañ ko jox nañ ko ay banaana. waaw waaw. Ah, waaw yàq waay. li waaj a wëyoo nee ko toj nañ ku ne yàq nga cuuj. waaw waaw dëgg de. du yàq tey. waaw nga dëgg de jox nañ ko xaal xaw ma ndax da kay toj. boo xoolee Balla mu ngi eh. ci loxo bi ñaari nen. dëgg la xam naa buy mbër bi di génn moo koy tojal. ndeysaan cooy làmb waay. Mhm. dama gis Balla Gaye yor xaal. waaw waaw. Balla Gaye benn xaal. ndeysaan rakk jaa ngi waaj génn. jàkk jaa ngi waaj a génn ndeysaan dafa ndurox boy naar laa fi gis ndeysaan ma ngay joxe mbiskit yi yaay ji mu ngi koy ñaanal balaa moo génn waaw mu ngi dëkk loxo ñaanal ko mu ngi dëkk di xaar yaay ji ñaanal ko ndeysaan ñaanu waajur lu ne lay def si doom ñaanu waajur mën na lu ne bilaay walaay naa Balla Gaye yor benn nen ak xaal ndeysaan waaw waaw mu ngi koy ñaanal waaw ndeysaan cëy yàlla doom dafa sori si yaay yi yaay sori si doom ndeysaan ndeysaan kay ñaanal yaay ji mi ngi noon di ko ñaanal yaay ji mi ngi noon di ko ñaanal yaay ji mi ngi noonu di ko ñaanal ndeysaan yaay mu ngi koy ñaanal ndeysaan ndeysaan mu koy ñaanal waay waay waay làmb waay ndeysaan man li gis nii tey dama ko gëj a gis sax ndeysaan lii daw na yaram lii daw na yaram saa kees ak yaayam lii daw na yaram saa kees ak yaayam lii daw na yaram saa kees lii daw na yaram diggante saa kees ak yaayam ndeysaan xoolal ma lii rek daa waaw dëgg waay waay waay lamb waay ndeysaan jox na ko ay nen Balla jox na ko ay nen toj na ko ndeysaan jël nañ bant boo xam ne ñu ngi koy wëral balaa moo dugu loolu moom day toj liggéey ndeysaan Balla Gaye moom yor na xaal waaw waaw genre bant boobu moom day toj liggéey ñu ngi ko koy defaat uh-huh. ñu ngi ko defaat ñu koy defaat balaa moo dem peut-être juróom ñaari yoon nañ koy def wala juróomi yoon wala ñetti yoon daal li moom mooy day tool. dëgg la wax dëgg yàlla. mu ngi waaj dem ah Sakess dugg na. Sakess dugg mi ngi noonu di waaj a dem. Sakess dugg na mi ngi noonu di waaj a dem. Sakess dugg na mi ngi noonu di waaj a dem. ndeysaan. saan ah. ndeysaan Sakess dugg na mi ngi di waaj a dem. ànd ak ñoom Lac de Guiers ñoom Jackson ñoom Guiro Seras ndeysaan yaayam ñaanal na ko avant moo dem tey bii combat ndeysaan ndeysaan ah mi ngi noonu di dem ndeysaan Balla Gaye ndeysaan Balla Gaye demul mu ngi fii taxaw peut-être nag fii ci kanam dina dem pour jox rakam ay conseil ndeysaan mais fu mu nekk nii demagul de Balla Gaye mi ngi nii taxaw peut-être fii ci kanam dina dem estat jox ay rakkam conseil ndeysaan tey ndaay Balla Gaye ngi nii fils de Double Less lu mu war a wax rakkam wax na ko ko nekk bul yàkkamti combat déclenché la ndeysaan ndam rek nañu soxla waaw bañ a yàkkamti loolu la ko doon conseil yaayam ñaanal na ko ndeysaan ndeysaan Sa Thiès départ na débat déeb yi mu war a def yëpp def na ko ñu ngi noonu nag di dem stade kat-kat bu weex lu dugg balaa moo dem yaayam ñaanal na ko ndeysaan képp kiy bëggee Sénégal rek Diba mu lay bëggee maa ngi gërëm équipe bi yëpp ndeysaan waaw waaw ñu nii di waaj dem stade en direct sur suñu site bi ndeysaan ah, waaw ndeysaan saa kees mi ngi noonu di dem ànd ak waa groupe T-Max ndeysaan mag ji jox na ko conseil bu wër xamal na ko combat déclenché la jarul yàkkamti ndeysaan xoolal supporters yi rek mais am na ñoo xam tam ñu ngi doon kaas ne ñoom amuñu billet ndeysaan ñu ñëpp stade nañ jëm ndeysaan ndeysaan xoolal ma lii rek cent pour cent géejawaay bu ñuy wax mi ni nii xoolal ma lii rek lii daw na yaram waaw mën nga bi ubbi verre boobu ah. bii. waaw foofu noonu mënuma ko ubbi. dafa micro bi fii nga mën a jël ambiance सरक सरक Gel ya. ji waa Guédiawaye fàq nañ ñëpp a ngi eh, daw ñu bul dugg oto ñu ngi daw jëm stade. nag ba arène nationale xool leen rek <laughs> xool leen rek xam naa ni nii def nag ba arène nationale ndeysaan waaw li yëpp bés bi nag moo leen ko jaral ndeysaan waaw waawaa moo tax ñoom tey ndam rek ndam rek nañu gis parce que bu ñu daanoo loolu seen avantage cey bii combat dañu tesen tax koo xam ne nag vraiment nag champion la dafa am 233 combats ma 10 défaites rek la am si lutte sans bi bëre dóor bi yëpp daf ci am victoire moom tamit bu daanee am na fu mu koy yóbbu combat bii lu mu leen jaral ak lu Balla Gaye wax saa kees mooy dalal boo dalee rek nañ am dinañ am ndam waaw waaw loolu nag moom mooy komba boo xam ne bés bu daanee rëg-rëg rek xamal ni moom si bombardier la jëm ñëpp loolu nañuy wax waaw waaw dëgg la Djiba <laughs> le grand reporter de Sénégal Djiba ñu ngi lay dalal jàmm combat bu nar a doy waar combat jànk la de géejawaay fii mi golf ñëpp parcelle ñëpp mobilisé nañ ànd ak Sa li dafa mel ni dafa may fàttali Balla Gaye buy bëre wala Modou Lo buy bëre gis nga ko noonu liesse populaire géejuwaay waaye fàq na ñu ngi ñu ngi ñu ngi toll nii ak euh, ravin centre sauvegarde lañ toll nii agresseur la xanaa daa mel ne agresseur la de gars yi topp nañ ko noonu de daa mel ne da de waaw waaw demal demal demal ah yow yow xam nga nay def yow tournel nii ñun ñu wàcc dox comprendre nga xam ne bu ñu ñibbaat duñu sonn est-ce que comprendre nga waaw dem ba jël entrée bi rek kiyaat quoi mën waaw Ndiaye naka mu. Oh. ndeysaan dimanche 5 mars 2023 ñu ngi fii si arène nationale bésu kan la bésu Gaston tëgg fi combat bu mag mi Sa Thiès ak Reug Reug ndeysaan comme lu leen doon wax rek Sa Thiès 14 victoire la am ñaari défaite Boy Niang moo ko daan ak Malick Niang waaw waaw ñu ngi fii ndeysaan xoolal ma lii rek waaw booy yaa ngi kaas booy yaa ngi kaas waaw waaw ay lekk moo xam sax du lekk nit. bilaa walaay nit ay fonde la ñu ngi fii si arène nasonal day sànn Sa Thiès moom mooy waaju dugg si nii mi dimanche 5 mars 2023 Gaston Mbengue moo tëgg combat bu mag mi diggante Sa Thiès ak Reug Reug que le meilleur gagne moom mooy waaju dugg si nii day san cey bii combat. waaw waaw dégg ngeen xale yaa ngi wax waaw waaw. saa kees rek. saa kees rek. tous waaw saa kees rek. la. bilaa wala wa waaw waaw. wane na xool wane na kenn. saa kees rek. waaw waaw. saa kees rek. saa kese waaw. daa saa kees kese saa kees kese la ñuy toog. di la moom la ñuy toog moom la ñuy am. saa kees kese ku dee sa tur a toog. du ngeen dégg sa jotu nay. rëg rëg tey mara naa doo xool. rëg rëg tey mara yi la. rëg rëg rëg rëg tey mara yi la. dégg ngeen loolu. dégg jaayef dégg ngeen loolu. saa kees kese. saa kees kese ñun billaay wallaay di joobu keneen. saa kees kese amul dara tuus. aversivo.